acca arbitre bi soufflé na combat bi dox ci diggante ñaq jariñu ak boy jaxaaw ndeysaan ñaq jariñu boy jaxaaw laat bu xaritu yaay ja bëgg naa la euh, presse Khadim Fall bëgg naa la Lamine Saloum production wala Lamine Sarr Medina bëgg naa leen ndeysaan ñaq jariñu ak ki nga xamante ne nii mooy saba booy jaxaaw ndeysaan ñax jariñu booy jaxaaw ñax mu ngi def ay ay ay ay ay dar sa di def pay fii pay fee ay waay bëre xale ak mag ndeysaan booy jaxaaw ñax jariñu ñax jariñu booy jaxaaw ñax a ngi def mouvement arbitre bi woona leen ci digg làmb ji ndeysaan avertissement benn avertissement pour ñaq jariñu prési maa ngi lay béggee grand Moussa Diop Ndaw Kounda Père Mbaye Tine Bamba sama yaay ja Khadi daam taximaan bu mag bi acca ñaq jariñu ñaq booy jaxaaw ñaq salaay booy jaxaaw daan na ñaq jariñu jaru door daan na sama xoyaan Njaay ba daan na ndeysaan moom booy joxaw ndeysaan Eumeu Sène waxoon na ma ko nee kii na ko lamb bàyyi xel satu xoyaan Njaay la satu sama xoyaan Ngom jarbaat la ci ki nga xam ne mooy Eumeu Sène maga ma ko jur kon kon lamb dellu na fa mu nekkoon nee na ma kii mooy sama relève ëllëg ci lamb ci ëllëg ci lamb nee na mooy jërël galaami kolle ndeysaan doomu Pikine ji daan na loolu loolu la dama ko doon dama ko wax ni. dépasse la doon daw. xam nga dépasse la doon daw kenn xamul. dépasse la doon daw. dépasse la doon ndax combat trois jours. trois jours man dama liggéey barki seen naam du pour moom. Saara maag Saara la woon Saara feebar xam nga dama doon leeral rek Saara dafa feebar xam nga yàlla tanan nag jàmm waaw naa ko woo après quoi bu ñëwaatee état ñu ngi xool leneen nekk moom côté quoi. waaw ñooy xool leneen ñooy xool leneen instant nekk ñu pour moom. bilaaxe maa ngi nuyu nag Eumeu Sène sama gars yi bilaaxe grand combat bi ku daan soxla naa la. grand combat bi. ku daan soxla naa la. fii suñu ci yow. wër na yàlla ñan. ñi lañ ma ëppee. surtout Samba Xaar Ngom man sama mak mooy làmb. loolu dafa lay ragaloo lool. Eumeu Sène mooy làmb ñun defaguñ dara bëreeguñ sax sa wuyul kii kan la xaw ma ko. xaw ma ko xaw ma